Relations internationales. abonné leen ci suñu YouTube ngir jot saa su xibaar yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim réew. dañu commandé depuis trois mois ci ginnaaw suñuy mayo état bi nekk ba moment bi ñu toll fédération football du Sénégal ñëw nangu suñuy mayoo ak douane léegi nag ñun ay jeunes lañu. yor ay entreprise di liggéey boo xoolee kenn ku ci nekk au derrière vingt personnes ou bien trente personnes ñu ngi ca ginnaaw ku ci nekk soutien de famille ñu dem def ay prêt banque ñu ñëw nangu suñuy mayo ci noonu moment bi ñu toll nii ak ku nekk xam ne jamono bu mu métti ak crise bi ñu nekk échange crise mondiale la ñu nekk ñu dellu nangu noonu suñuy mayo te kenn ku nekk xam na ne Sénégal bu gagné coupe d'Afrique ñu jëm coupe du monde Sénégal yëpp seen xool dafa war a féex ñëpp dañoo war a bége léegi nag bu ñuy jëndee suñu mayo ñu nangu souvent fédération football de Sénégal li muy jaayee maillot sénégalais yi cher na ko jënd sénégalais yi mënuñu ko jënd benn maillot soixante mille wala cent mil francs cher na léegi nag ñun ñu def suñuy commande ñëw pour population bi mën a gis seen bopp ci mondial bii ñu jëm pour nekk ci gannaaw Lions yi supporter leen pour nga xam ne bu ñu demee macha allah ñu ngi ñaan nag ministre non commande bi bëri na macha allah bëri na trop nee na 37000 maillots ak waaw mais doo ko non ku nekk day commandé boppam rek ku nekk day commandé. commande dafa bëri ñun. mënoo koo xam xam à peu près saa yëpp am seen maillot. parce que bëri bëri na trop macha allah. léegi nag ñu ngi ministre bi muy Yankhoba Diattara lii nga xam ne jamono Matar Ba amuloon jamono Matar Ba amul ba Matar Ba nekk na fi ba jógee fi chaque Coupe d'Afrique bu ñëw gars yi dañuy dem def seen commande maillot ñëw jaay ko tranquillement duñu am benn jafe-jafe ñu am benn problème kon moom bu ko falee ministre ñu ñëw moom ak fédération bi ñu def benn. link link boo xam ne nii pour récupérer alalu askan bi. ci loo xam ne nii du dara aussi ñu ngi lor sénégalais yi su ko defee ñu ngi interpellé direct di ko wax ñun ay njabootam lañ aussi ñëpp ay soutien de famille lañ li ñuy récupéré ci ay mayo kenn xamul nu mu ñu ngi koy ñaan lu mu mën a lu mu mën a lu mu mën a intervenir ci nu mu gën a gaaw ñu delloo ñu suñu alal loolu moo ñu gën a